daan leen ba noppi daw dem loolu nag bokk na ci li nga xamante ni metti na ma ndax koo xamante ni daan ñu ne déedéet nga teget ci ki nga xamante ni mooy Diène Kaïré boole ñoom ñaar daan ba noppi daw bàyyi làmb ji dem bokk na ci li nga xamante ni metti na ma ñoo ngi koy nuyu foofu mu nekk di ko wax ne na gën a ndax ku ci nekk ak sa wërsëg fa mu nekk da ngay daw dem jëli ko tey nag ma dalal ki nga xamante ni mooy Sa Thiès Sa Thiès laa na ak keneen ki nga xamante ni nii mooy Daabu Texas ñoom ñaa ñoo fa woon jàmmaarloo tey mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñoo ngi koy jaal ki nga xamante ni moom la wàññeekule ndax euh, démb ci guddi rek woo na ma di ma laaj ban heure la ba ma wax ko yooyu yëpp mais tey bi ñu xëyee Sa Thiès ñëw moom mu woo ma ne ma rakku papaam xamuma ma magu papaam moo gaañu tey ci fajar di ko jaale di ko ma masaw bu baax a wax di ko wax ne àdduna noonu la yàlla moom bu soxlaa jaam day ñàkk di ko wax ne na muñ ñu ñaanal ko defe naa ne loolu mooy li nga xamante ni moo fi sës wala boog moo fi des. Sa Thiès nuyu naa la. Ousseynou maa ngi lay fay naka mu yaa ngi ci jaama. sant bu baax maa di ziar comme waa Kër Masar fu ma jugee maa ngi nuyuwaat bu baax a baax waaw. daaw nag bon maa ngi koy jaale papam boobu wàññee ko waaw yal na ko yàlla yërëm taxaare ko arjana waaw comme ni nga ko waxee rek waaw. nice kay. nice ana waa Jaxaay waa Kër Masar. waaw Jaxaay nga foofu bilaay waa jaxaay nga fa ñi lu metti mais man nag man nag man nag balaa balaa balaa maa xuus ci waxtaan wi euh, dama bëgg a xam lan la la gars di dawee parce que man man gisuma ci yow ngemb gu bay comme ni gars di def naan nii sama ngemb damay def xaalis man gisuma loolu te gisuma dóor boo fi dóor nit ba mbëri mën laa daw boobaak léegi sa combat mënut a taxaw ndax sa combat taxawoon na fekk carrière ngeen dawal presque mat corona bi sax moo tax bëréew leen boobaak léegi combat bi mujjee yàqu kaay am combat boobaak léegi mënoo am combat lan la lan la mbëy di daw ci yow man loolu laa bëggul xam parce que yaa ngi may wax léegi na ma mbër bu amagul combat sax bu ñëwee maak moom ñu bëree. non def ci làmb combat yi nga jot a bëri yëpp. non saa yi moom bëri naa neuf combat rek xam nga. ñaata victoire. sept victoire deux défaites. sept victoire sama premier combat laa daanu teg li sept victoire yi sama neuvième komba laa mujjee daanuwaat affaire du ngeen bu de. maanaam di dox ci mbedd bi ne wala boo demee sànni ba am ngemb ak yooyu ne affaire bi xoolal ci suuf nga koy réglé du ay nekk fii nekk taxaw ci télé bi di wax de ci suuf nga koy réglé man du ma xeex naa tey jii man góor bu ma jàkkaarloo xam naa ni ma lay affronté. mais léegi li ma bëgg a xam la moo tax nga dem ba ba ba ne koo xamante ni bu amagul combat sax na ñëw man ak moom ñu bëre lan moo waral loolu. booy ñoo may daw. ñu mu war a bëri man ñoo ngi nii war a. gis koo xam te bu amee 4 combats sax bu benn booy amee 2 combats mënunoo bëri maa ngi maakaaw nga am 9 combats bëgg bëgg tax na nga ne ku ñëw nga sëgg. non ay dama laa ay dama laa raw ci làmb te kooku noonu maanaam tey jii moo la ëpp ay combats nga ne man maa ko raw amul njëriñ. Mhm. tamit nit balaa ngoy raw dafa fekk nga daan ko. dëgg nga ne maa ko raw. waaw du question koo xamante ne yow yaa ngi ni bëri ay 2 combats 4 combats ki bëri 9 combats xam nga nga taxaw ne yaa ko raw. loolu logiqueul mais dama gis ñoo xam am na ci mbër yoo xamante ne tey su fekkee toog nañ un an wala six mois yoo xamante ne amuñ combat ak dootuñu entraîné mais boobaak boobaak lee gis naa nga toog presque deux ans yoo xamante ne sa combat taxawul mais ba tey bàyyiwuloo. non man maanaam niñ ko mën a waxee man lamb laa xam. Mhm. comprendre nga lamb laa xam moom laa gëm moom laa xam moom laa gëm man tout le temps man damay entraîné sëñ bi maa ñàkk a sax. sama waa koñ sama waa fan si club dañ may rey benn yoon ma dee toujours man maa ngi entraîné suba ngoon bu ñu waxee ay corona sax man dama doon dem entraînement ba gars yi ne ne lan ngay entraîné man tout le temps man maa ngi entraîné. mais promoteur yi bàyyi na est que dinañ lay woo di la proposer combat. si promoteur dañ may woo naa comme maanaam tey ñi ma ñi may laaj. Mhm. ñooñu booy wax mu ne du ñu du man loolu amul benn sens. gars yi nañ ma jël ñu bëre. damaa dem ba ci biir sax xam nga su ma demee entrement di en damay entraîné ba ci biir ma xalaat ne tey jii damay entraîné ni du gars yi duñ ma jël bàyyi ma jéem a xool. wàññi wàññi poids bi comprends nga ba gars yi mun maa jël dama doon xool bu ma ñëwee sama kër grand bi Omar Kébé. Mhm. comprends nga kooku moom aw ma fayam kooku daf may jàppale bu baax. damay ñëw këram xoolal daf may defaral lépp damay dem ba ma ne lii yëpp jalatu ko comprends nga comme instant yi moom. combat bi gars yi ñemewuñ maa jël bàyyil ma wàññi raison bi comprendre nga. ma wàññi lekk bi wàññi lekk bi pour maanaam gars yi muñ maa jël barki alxuraan. non mais combat nag bu fekkee taxawagul nga bëgg am benn ration bi di ko kiiwee tamit day xaw a day xaw a métti de. ah comment faire mbër moom xam nga mooy loolu yaa ma gën a xam foog ngay dund. waaw di am mais mais mais ñan ñan ñan lay proposé ñan lay proposé. non ñu may proposé bëri instant yi man. Euh, lay Goota proposé woon ko mu bañ. xam nga Laye Goota bañ Laye men proposé nañ ma ko mu bañ waaw kii nii gamagee ba tëngéej bi man maa ko gën a bëgg làmb ndax instant yi moom ma sa jël. ñi ma nga def gàmmu goy gàmmu goy jóge soo ko def daanu. saa waaye erreur amul foofu. dañ koo mun daan ko fan erreur moo fa nekk ñu jàppale daan la nga ma erreur. na ma jël Gamou Gueye bu Tëngéej na ma jël. non mais Tëngéej Tëngéej nag Tëngéej nag Sa Thiès nag Sa Thiès yeggu goo ci Gamou Gueye Mama yaa moo ngi fi. kon Mama yaa Gamou ñëw ñu bëre man eh, Mama yaa bu nangoo jël avance bi na ñëw man xanaa déggoo li ma la mbër mu ñëw ma bëre ak moom. pourtant combat ma créa doole ñoo ngi ko doon dox ba daanaka tuute ci desoon maa ngi nuyu fay fay fay fay production bu baax a baax ndax. Euh, combat bi tuuti ci desoon mais dafa mel ni Kara Dollé euh, dégg naa ni am na beneen combat boo xamante ni taxaw na waaw dégg naa combat am taxaw na pourtant Faye mën na dox sa combat yàq. waaw Faye na ma doon wax ay combat ñii xam nga ndax comme nekkul loo xamante ne moom da koo appliqué Faye dañuy wax yàgg xamante man ak moom yor naa numéro dañuy doon déggante. xam nga su ma fi jógee dinaa ko woo. woo ko téléphone mu taxawal combat bi man instant man promoteur promoteur yëpp laa wax de. ku jug pour dëgg sama combat man pare naa mbor mu ma jox man bëre damay bëre ak moom. bu bu bu bu weesoo foofu ndax defe naa ne bëri ngay adversaire ndax sànq yaa ma fi doon wax booy bi daanoon kii euh, Mamor Cheikh Super Jamono. na ñëw ñu bëre Cheikh Super Jamono na ñëw ñu bëre. Cheikh nag fan yii moom daa tàng de moo jàpp booy di leen teg ànd ku ci nekk fu mu la war a dëj la lay dëj. saa na ñëw ñu bëre man instant yi pare naa. pare nga pour jëflante ak Cheikh. gis nga booy wax ndax man pare naa pour jël mbër dal njëkkee ci moom ndax pare na pour mu jël ma pare man damaa pare. man nag man nag am na leen loo xam te xaw na ma jaaxal ndax man damay gis ay mbër koo ci laaj mu ne nanguwuñ maa jël koo ci laaj mu ne nanguwuñ maa jël sans mbër mën nga leen a wàññi ku ci nekk day wax moom moom nanguwuñ maa jël te day bëgg bëri. man maa ngi nii duma ma du ma yokk casé man luñ ma fay ci combat bi dama koy bëre lu ma fay ci combat bi dama koy bëre man. kon yow neex ngaa jëflanteel fi mu toll nii. dégg nga mbëri nañ pare pour bëreeg man ñi taxaw ne du ma bëreeg nañ pare pour bëreeg man. yow daal da nga bëgg ñu xaatim rek ne sa combat taxaw na. saa ma promoteur nañ ma waat nga xool proposé ma beneen mbër nga xool. ah bu mu nee la boo boo fi jógee du toog yàgg nga nga bëri de xanaa woo nga koo gëm ndax xam naa ne gannaaw lii nga wax moom man boo fi jógee dinaa dinaa woo te dinaa la woo. ah ko rek man instant yi man naa pour bëri. mbër yi ma gën a soxla gis nga Boursin. non Boursin moom non dafa ndànk parce que man. non am na kan moom fi woon am na benn mbër bu ma woo di ma waxi Boursin ba pare moo ngi jógee ci defet daanu di ma waxi Boursin la moo tax bu ngeen da ngeen da ngeen Boursin xam nga du la jël Boursin da nga teg ne ñaar de victoire. ñaar de victoire xalaatoo ci suuf ak ay Zal Bamba yaa ngi fi Zal Bawal a ngi fi. ñooñu bu ñu paree pour bëre man Zal Bambey wala Zal. gannaaw gannaaw sa parewul pour bëre ak man Zal Bambey parewul pour bëre man. Zal Bambey gannaaw sa copain dem na wuti beneen combat moom. Zal euh, ba muy bëre ak xan euh, mu tuddati. fii nii Ibamaat non non mbër mu gàtt bi. waaw di yeggali. Euh, damay fàttali tur bi. jour man maa ko doon tëkku foofu mu mën a bëriwumaa yow. Zal Bambey moom kenn waxatu ko ñemewu ma sa jël. fi may jaar sax du fa ñemee jaar. xam ma la fa may jaar du fa ñemee jaar. bool bool yi daal moom duñ fi wax lañ bëri ci boppam duñ fi defee tus nañ ma jël waaw loolu ngay wax ndànk. bool bool de xam naa ci ñëw am fit ñeme ba pare mën a bëri. saa <laughs> bu ma laa nee man bool. du question man dafa yaroo sax dama faa dem ba tey. mais mais mais mais mais pourquoi pas yaa yaa kii euh, Baye ma Junior. Baye Mandione Junior dañ fi gis yoo xamante ni yaa Baye Mandione Junior neex na yow ak Takke yaa ak Takke làmb du ko dàq. waaw loolu làmb la man ak Takke làmb la Baye ñu bëre instant jóge ñu defet naa man bañu ma ko nañoo ñu bëre la. Baye Mandione Junior neex na yow ak Takke neex na. tamit. adversaire de taille ngeen Pam Ndoy bi daan taxe bu ma ko amee jël. non Pam Ndoy moom dalaa xeeb fi mu toll. dana xeeb yow Pam Ndoy bu waaye yow. Pam Ndoy maay combat bu may xeeb. fi mu toll dafa dugg dafa dugg bi Lansar jaxase ko ba mu jaxasoo. waaye Lansar foofu noonu foofu la dugg di jaxase. am na ay temps bu may doo bëre ak Tonnerre daan na ma doon laaj période boobu daan na ma doon laaj na ñëw ñu bëre. yow Tonnerre Lo nu def. Tonnerre Lo man maa ko daal sama cinquième combat laa bëre moom daan ko. nga daan tonné deux. yow loolu ngay wax ndànk. kan nga daan ñëwaatal ma ci combat yi. Euh, ma xool sama premier combat la ñàkk. Mhm. Euh, sama deuxième combat ma bëre ak euh, Boy Kamo bés yi da ca jambal. Mhm. te mu naanoon bés bi noonu jox ko Lamine Samba ne ma ne xaaral ma ñëw. boobu ñu dem Félix moo ko daanoon. Mhm. Félix joxoon nañ ma ko mu daw. comprends nga Abdou bu Tëngéej laa daan sama troisième combat arène. Boy Lamb parce sama quatrième. Caterpillar. bu yëmbal euh, Boy Pula bu géejuwaay sama septième combat ma daan euh, Boy Jamono yaakaar naa ni Bawol la dëkk ma euh, sama cinquième combat mooy Tonnerre 2. Tonnerre 2 nga daan. sama deux. palmarès bi yëpp mbokk yi. sama néew combat bi laa mujjee ñàkk xama mooy loolu combat Bombardier Eumeu Sène boobu moom. du question ma taxaw fii non bu non non bu fi saldel de. non non du question saldel maanaam tey jii combat boobu ak nu mu demee xam nga. mooy non combat bi gars yi dañ maa. déedéet na la demee déedéet parce que mënoo fay lim say adversaire lim fi say victoire ñëw sa defet naan non c'est que c'est à dire. non boo taxawee di wax loolu xam nga mun na demee neneen. xam nga lan la combat bi demee. non combat bi comme maanaam tey kuñ ma joxoon ak ki ma bëri dafa bokkut. yaa ngi dégg ngay dem mbapat di fa fekk ñoo xam ne xamoo leen. mbapat nga wax mbapat nga wax ku ki nga war a bëri bu delloo avance keneen jël la jël la xam nga ne combat nga wax. Hmm. combat arène. waaw comprendre nga kooku du lay waajal. bu jour léegi yow bi bu jour combat bi. adversaire la waxoon ban moment nga xam ne adversaire bi changé na. bu ma dugg see làmb ji ba may dugg see bay waaj ba ma dugg see pour dem ci biir géew ba laay door a xam ne dañ maa changé ki may bëreel. nga def nan. nan laay def ma bëri ak sama jom dama doon bugg naa ñibbi sax gars yi ne ma ne ñibbil ñibbil ma ne non xaaral. instant bu ma ñibbee dañuy wax ne Sa Thiès dafa dem ba stade ragal ku muy bëreel te man du ma ragal. mais est-ce que ragaloo woon. waaye ban ragal ku ragaloon dina. la ma ragaloon may jël samay samay bagages jëlee lamb ji la bëggoon a ñibbi. gars yi ñoo ma doon wax ne ñibbil bul bëree ma ne bàyyi ma mu bëree ci sama jom ndax jouru làmb ja mooy loolu ku ma xam dëgg bu ma taxawee sax nga am ne kii nii ci làmb ji ndax sama jom moo ma bëree làmb ji. nga daanu ma daanu méttiwu ma nag daa comme mooy loolu. maanaam lu des moo ëpp loolu gars yi nañ may jël saa yi muy loolu de. bari yaram daa tàng. waaw yow tàng ngay wax man da sama waa koñ ku ma tajal damay bëreeg moom ku ma dajal damay bëreeg moom gars yi ne ma ne wutil combat. mais yéen nag waa Kër Moussa dafa mel nii gars yi dañ leen bëgg a génne ci làmb wala xaw ma parce que maa ngi gis ki nga xamante ni mooy Boy Seye 2 moom tamit combat ko dafa xaw a metti lool lool lool lool. non maanaam tey jii mu war a ñu ngi fi ñu mu war a bëre ñu ngi fi ndax gars yi ñoo ko ñemewul. waa Kër Moussa ci boppam la. waaye yéen lan la ñu ragal ci yéen. Boy Seye ñaata xam nga 15 combats. daan fi ndaanaan bu am 11 victoire ba est-ce ko mën a bañ. tamit ñu nañu waxante dëgg. mais yéen lan la ñuy daw ci yéen xam nañ ko seetin mbër jox ko suñu avance nga xool daan nañ ko jël. non yow moom sa combat dina taxaw. waaw yow man fare naa de <laughs> man waaye bàyyi sa li ngay def. gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo am nga mbër bëri am 9 combats am ci 7 victoire de défaites bëgg a bëri moto ko euh, promoteurs yi nañu jàppaat ci xale yi promoteurs yi nañu xoolaat ñi nga xamante ni làmb da leen soxla ndax euh, Sa Thiès mii kenn du ko gis di laajte ana mbër mi. nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax ndax moo ngi nekk fee ci écurie jaxaay bokk kook ay xale ay ñoom booy sëy ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante nii ñooyu fa di bay seen waar. di ñaanal sama euh, seex bi ma àndaloon fii. waaw dafa war a bëri le 19 yal na ko yàlla may ndam ndam bu see dugg yii barke alxuraan maa ngi koy ñaanal. ah na liggéey rek. waaye boo ko gisee xam nga ci liggéey n'a pas travail. saa ci liggéey lañ dëkk toujours ci liggéey lañ dëkk toujours kooku moom mooy loolu. boobu moom day liggéey bu nekkee liggéey rek mooy may ndam day am ndam comprends mhm. joxoon nañ ma Dugar Pël xam nga ko bu géejuwaay. ñëw ngaa dugg ci. waaw Dugar moo bañ combat bi fan Ndiaye moo ko doon tëgg Dugar Pape Diagne Seera moo bañ. yow est xam nga ne dañ fi ñëwaat. man pare naa déggoo li ma la mboor moo woo pour ñu daje fii pour combat bi taxaw man pare naa pour ñëw. Dugar nga xam te fan yëpp maa ngi koy wër fan yii yëpp. boo demee neex na Sa Thiès numéro 2 bu Kër Massar. xam xale bi dafa am doole. est-ce que yow gëj naa gis Dugar. ban gëj bi bi bi bi waa 100 pour cent bi tëddoon. adversaire ñëwul ci signature bi daa taxaw ni wax ne dañoo tëgg am na mbër yu bëri promoteurs maanaam tey gars yi dañuy tëgg combat du ñu jox mbër avance. Mm-hmm. beneen mbër bi dañ koy jox avance muy préparé keneen ki ñu koy xaarloo bàyyi mooy loolu loolu da ngay war a quoi mbër boo nee taxawal nga combat am da nga war a yëkkati jox ko avance jox sa moromam avance ñu commencé ku nekk di préparé sa bopp ba jouru làmb ji ku ñëwul ngeen door a nekk am loolu la di wax parce que ñooñu jox nañ ko avance. waaw loolu tamit lépp a ngi ci ndax. Ah. Euh, nan laa ko mën a waxee kiy tëdd ca lal ba moo xam matt yi am ca lalam gannaaw yéen yéenay mbëri lu nekk ngeen di jëflante ak promoteurs yi lan ngay wax waa Kër Massar ak ñi nga xamante ni ñi ñoo ñoo nekk ci mbondum làmb waa kër waa Kër Massar moom li ma leen di wax moom ah, nañ gën a jàpp xam nga xam ne seen mbër mu ngi fii xam nga man maa ngi nii daal di entraîné waa Kër Massar aw ma seen fay man Kër Massar kër bu nekk laay dugg foofu Kër Massar bu mu daj kër bu laay dugg nit dam may fekk ci kër sax di laajte waa kër gi ndax kii fii la dëkk ndax ñoom nuñ mel ci man dañoo baax awma seen fay waa Kër Masar bu mu daj ñëpp nag aw ma seen fay dëkk njongoloor Fatick laa dëkk njongoloor aw ma seen fay ñooñu moom mooy loolu dañ may jàppale bu baax di sant ñëpp waaw aw ma seen fay bu baax maa leen sant ñoom ñëpp di sant Jeynaba Njaay sama yaay yow des fa xam nga ko. Mm-hmm. sama yaay kooku da may jàppale bu baax maa ngi koy sant di koy gërëm di sant Omar Kébé. ak mm-hmm. jabaram si këram sa laay wax kër Omar Kébé. Mm-hmm. aw ma seen fay tey may jàppale bu baax a baax a baax dèjà léppam lépp sama lépp foofu laa koy defee suñu kër lu ma fay dem sama papa dafa dem ba ci biir xam nga ne ma ne yow lan la lu xew sama papa it aw ma maa ngi koy gërëm bu baax. comprends nga sama rakk yi ma nekkal kër ga maa ngi leen di gërëm bu baax samay doom bàyyi lañ ndax macha allah daal maa ngi leen di gërëm bu baax a baax baax di gërëm ñëpp daal bu ma limee damay juum. wool mbër yi nag ne leen bu leen promoteur yi seen jël avance bi. mbër yi jël leen Sa Thiès maa ngi ñii comprends nga bàyyi leen avance bi ngeen di delloo man maa ngi nii jël leen avance bi moo gën. mbokk yi gis ngeen. agent yi nag boo leen ko jëlu agent yi bu a métti ci de si yeboo ngeen xam ko. yàgg naa di leen koy wax bi may bëri ay quatre combats ak yooyu noonu mosuma daan tolaaju ma soq ba may commencé bëri laa laa ay sox ak dumbul mosuma déggoo ma sama bët laa ko tegoon. te pourtant nag loo ci xamul soq am na combat am taxawoon mais ñu dem ba ci biir adversaire bi yàqu fi mu toll ci wóor ko adversaire lañ nekk moo gën a naqadee wutu adversaire loolu moom maa la ko wax ndax man xam naa ni. am na pour mbëy ba yoo xam ne ñoo ngi leen seeti di leen jox avance soq ñu ne bëriwuñu soq lii ma lay wax leen naa. doomu daangu. amul combat ci taxaw fii di laaj ay Sa Thiès amul combat amuma combat du na ma jël. non doomu daangu nag may na xale xale yëpp sens ndax doy na ba ci kaw wàccaat du gàcc. instant yi instant mënatul yéeg fu mu nekk nii mënatul yéeg na maye waat sens. non loolu loolu ah doomu daangoog noonu wax xanaa. man kay moom may dégg. moom lay dégg. waaw yow nga ma ay moom may dégg ñooy bokk même saa yu ñuy entraîné gars yi nañ ma jël. yéen a bokk saal bi ngeen naan doon. waaw yow nga ma ay lan ku ne xam nga sa morom saa waay mbër yi nañ ma jël bu dee dañuy ragal ñu teel maa wax tey jii ma tekki sama ngeen bu continuer sama dawal oto bu dee duñ ma jël làmb di laalaa de bu dee du ma bëre ma bàyyi bëre ñëpp xam nañ bàyyi naa bëre ndax mënumaa nekk ci làmb ji mbër yi duñ ma jël. ma bàyyi làmb dem continuer sama liggéey moom ma ko gënal. Euh, sama booy jaxaay yi. Mhm. maa ngi leen di gërëm bu baax Mama Lamine am na combat Papa Zita am na komba xam nga. Papa Zita ma daje Franc si waaw am na combat maa ngi koy ñaanal ndam xam nga fii daas yaa combat mbee mu ñàkk maa ngi koy encouragé mu entraîné waat xam ne xam nga làmb ji bàyyi kenn moomu ko. Mhm. sama papa mbër la taxul nga mun ñu nekkul seen papa nekkul mbër comprendre nga instant na entraîné waat gën a jàpp xool ku mu war a bëreel. mu ñëw yàlla may ko ndam waaw maa ngi gërëm ñëpp nag waa jaxaay waa Kër Massar fi may liggéey nag ñooñu aw ma seen fay. Mhm. ñooñu moom aw daal barki yàlla El Hadj Faye kooku sama la. Mhm. kooku moom depuis quatre ngi nii xam nga ñu bokk liggéey mosuñoo kii suñu directeur maa ngi koy gërëm ñoom El ñoom Yaxya ma seen fay ñoom ñëpp ñoom Omar Adama Sarr. gars yi ñëpp maa ngi leen di gërëm ñoom Gorber ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm waaw am ma seen fay su ma limee daal damay juum daal barki yàlla gars yi nañ ma jël ma bëre. gis ngeen gars yi nañ ma jël ñu bëree tey ma dalaloon ki nga xamante ni mooy Sa Thiès euh, bu bu bu jaxaay Sa Thiès numéro 2 moom laa dalaloon tey waxtaan ak moom ci jàmmaarloo di leen jox di daje beneen yoon ak yeneen mbër jaa ngeen jëf.